والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa taala julli ci yonente sallallahu alayhi wa sallam ñu ñaanal ay saxaabaam ak képp ku topp ci seen yoon ba keroog bés pénc ak fàttaliwante lenn ci liy tax borom bi subhanahu wa taala bind ñu moom mooy aleykum salaam wa rahmatullah moom mooy mu leer ci suñu bopp nan la ñuy jaamoo borom bi subhanahu wa taala comme moom mooy objectif bi tax yàlla bind ñu ñun ñëpp suñu mbir bi war a jiitu mooy ñu xam nan la ñuy jaamoo yàlla moom thème bii nga xam ne moom la leen ustaad war a wala moom la ñu war a fàttali tey dafay jëm ci benn bunt ci bunt yooyu maanaam nit ki ginnaaw bi ko yàlla bindee jaarale ko ci ay yoon yu doy waar mooy diir muy nekk ci biir waajuram ba keroog ñu koy génnee mu nekk xale bay màgg ba yëg ne moom nit la borom bi subhanahu wa taala ni ko jaamu ma moom moo taxoon ma defal la loolu yëpp mu nekk ci kaw suuf léegi nag moo am yoo xam ne borom bi daf ñu koy xibaare ngir ñu mën ci bàyyi xel préparer suñu dund jëm ko jaarale ci ni borom bi subhanahu wa taala bëgg ma bokk ci xibaar yooyu nga xam ne mooy xibaar bu gën a rëy ci xibaar yi moom mooy taxawaayu yowmal xiyaam ñun ñëpp ñu war a dëkk jàkkaarloog borom bi subhanahu wa taala li yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax kenn ku nekk ci yéen dina taxaw ci kanam yàlla mu koy laaj amul benn interprète buy dox sa diggante ak moom dan loolu mu doon waajaay boo xam ne ñun ñëpp dañ ko war a wàcc dañ ko war a préparé ci loolu la ñu ustaas di fàttali incha allah ba ñun ñëpp ñu mën cee tënku ba mën a waajal suñu bopp parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon na wax ne akthiru min dhikri hadimi lazzat day leen bari loo leen di tudd li nga xam ne mooy dog bànneex yi li nga xam ne mooy dog ran yi ak boisson yeeg bàyyi ko xel lañ say dee yooyu noonu yëpp nga xam ne bu yegsee kenn dootul talati mbir yi ne nee na ñuy bari luñ koy fàttaliku te loolu moom mooy dee incha allah naa dañuy bàyyi ustaas incha allah mu duggal ñu ci bunt boobu ñaan yàlla mu jëriñ ñu ci li nga xam ne moom la ñuy dégg sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi ta'ala jawaluk hada zakka min al-muslim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko naa loolu mbokki jullit yi noo ngi daje ak yéen def jaamu yàlla bu màgg bi te mooy fàttalante Seyda def ma santoon ne naa ko def ci yowmal xiyaam ndax ba may dajeeg moom ci waxtaanu ñoom muhammad fële ci Delafosse waxtaan boobu lan defoon waaye xam ngeen ne waxtaan boobu dafa gudd guddaay boo xamante ne du mun a jeex ma xalaatoon ne comme moom xëy na thème bi gis na ci njëriñ ba wax ba tax mu ne nañ ko def ma jàpp ne war nañ ko mun a yeggali tey ak mbooloo mi nga xam ne ñoom lañ fi fekk waaye mbokk yi lu njëkk lu nu war a xam ñun ñëpp xalaat ci yowmal xiyaam lu war ab jaam la ndax daf koy fàttali ngëm yàlla li tax tey dund nit ñi mënuñu jàkk nit ñi mënatunoo baax dara mënatula sell mooy dañ koy fàtte fàttelu di xalaat atafakkuru fi ahwaali alqiyaama yujaddidu al iman wal yaqin di fàttaliku bis bu nekk yowmal qiyaam dafay beesalaat ngëm yàlla waaye day beesalaat kóolute sa digganteeg yàlla semaine bi damay seetaan facebook bi ma gis Abdul Aziz Touré al cheikh hafizahullah muy xutba juma ci minbar mu ne mbokk yi dama tiit sama xel dafa dem ci ñaari mbir ma tiit sama xel dafa dem ci bu ma deewee man Abdou Aziz Touré ñu sang ma sang ma jébbal ma sama boroom ma nekk ci bàmmeeli lu lu soob yàlla ba bis ma war a dekki nag wala jàkkaarloog sama boroom xaw ma kontaan na ci man xaw ma kontaanuma ci man ban kanam laay fekk naka la ma yàlla di recevoir mu ne loolu moo ma tiitloo ma dégg jumaa ji yuux fi ma toog di seetaan facebook bi sama bët yi taa ma jàpp ne ñun ñëpp ñoo war a xalaat loolu mbokk yi kenn ci ñun tey imagineel ni ñuy def ku dee suñ la ko defee ba pare mooy futti la sang la sang la yeew la yóbbu ba ci bàmmeel yi ñu gas ba mu xóot dugal la ci bu doon bu doon kuy dund la rek ñu yeew ko noonu ñu yeewee ku dee daal di koy teg ci frigo bi oto bi jubal 100 mètres suñuy ubbi bunt yi rek àdduna am tukki rawatina nag koo xam ni dafa dee nga war a dekki nag léegi dajoog borom bi ki la liggéeyloo woon xamoo loo fay fekk xamoo ndax yàlla dafa kontaan ci yow xamoo daf la mere moo tax atafakkur fi ahwaali alqiyaama yujaddidu aliman walyaqin waaye wa yuhyi fi qalbika alxawf min allah toog di xalaat ba ci yàgg cey man bu ma dajeeg sama borom cey man ndax li ma yàlla sant maa ngi ci cey li yàlla bëgg ndax maa ngi ci toog di xalaat waxtu yooyu dafay beesalaat ak ragal ci xolu jaam day tax ab jaam jékki-jékki rek daa di fëx wal firaaru ilayhi daw jëm ci yàlla bàyyi nit ñi waaye bu fekkee da ngay xalaat àdduna kese di xalaat bànneexu àdduna sa gis-gis day tëju tootoo am jokkoo sa digganteeg sa borom parce que àdduna moo lay yitteel xalaat ci yowmal qiyaam bu la beesalee ngëm may la yaqiin dundalaat ragal yàlla ci sa xol waaye wa yuxawinu fi aynika dunya wa zuxrafiha dafay oyofal bëgg àdduna ak ay taari àddina ci sa xel ak sa xol loolu moo tax mbokk yi mu ne nanuy xalaat ci dund gi nuy dund nanu xalaat ci bis bu nekk bis bu ñu wàccee sunu lal yi génn ñi sunu kër yi dugal ñu ci jàkka yi waajal nu génn nu ñu jëm war a dajajeeg sunu boroom bëccëg yooyu mbokk yi lu nit nekk lu mu mun a nekk fàttaliku lool loolu day tax li nga nekk jub day tax nga xam foo teg sa tànk day tax nga xam lii may dugg war naa cee dugg wala waruma cee dugg lii may def war naa koo def wala waruma ko def lii ma nekk war naa cee nekk wala waruma cee nekk ndax kat jàpp leen ne ku nekk li nga dugg bisa ngi ñëw yàlla dina la ci génn de ku nekk li nga jàpp bisa ngi ñëw yàlla dina la ko bàyyeeloo ku nekk li ngay def yi bis bu nekk bis ngi ñëw yàlla dina la ci fekk ci loolu ngay def boo yëgoon dina la wàcc boo tëddoon di nelaw dina la yee boo nekkoon ku xamul bis boobu di nga xam léppay leer ci yow ixwatal iman mbokk yi ñun ñëpp ñooy war a toog di imaginer safara wi nga xam ne moom la ñuy toggee ci sunu waañ yi di ko tàngalee sunu ndox yi te yàlla ne moom laa dencal képp koo xam ne dangaa jàdd sama yoon wi safara wow nekk lu dul luy jeexital fin finalité mbugal gu yàlla mbugal nar a jaam ëllëg yowmal xiyaamati safara yëpp mbokk yi texee di la safara yëpp ay yuuxulu ak ay jooy ak perte ak coono ak flamme buy lakki kanam ndox moo xam ne day xëtti ay mbaq di xotteeku di wàcc safara woo xam ne dafa fees dell ay seen ak ay kànnaar ñuul kukk ndox mu tàng jër keppaar goo xam ne lëndëm laak poussière mbugal mu sax dàkk loolu mooy finalité safara loolu la yàlla dencal képp koo xam ne dangaa jadd te sikk nekk ci ne ku mu mën a doon ci ñun day gaaw wala day yéex di nga dajeek borom mbokk yi kenn ci ñun fii toog ci biir salle bi bu sa téléphone ne woon kar léegi nga xool numéro bi muy 33 mu nekk fixe 800 nangam nga yëkkati allo ñu ne la présidence de la république yow yaay diw nga ni waaw ñu ne président daf lay recevoir suba lan ngay sentir looy yëg di nga waaj wala doo waaj damay laaj di nga waaj allahu akbar waxuma la di nga waaj ci sa bopp waaye ñi ngay àndal sax da nga koy préparé da nga koy waaj da ngay tànn da ngay commencé ñu ne la àndal ak nga ne ne dafa bëri wax dafa mën a xoolee pour du ma ànd ak moom da ngay commencé di tànn sax ñi ngay àndal ci saase ngay xalaat yére bi ngay sol ci saase ngay xalaat ban daal bu fekkoon ne amoo sax dina jaral nga abbi doomu aadama ab jaam comme yow moom nga war a dajal nga waaj ku war a dajal yàlla nag moom mi borom jaam ñi moo la war a recevoir te waajoo préparé wu kii dajeeg président toilette lay wàcc bu doon jigéen moom ñu war ko recevoir 5 heures midi lay commencé nit ñi ñëpp dañ naan ko gis nga midi nga commencé midi lay sangu bu paree ciy diw bi ciy capp-cappali ciy takk yi ciy ciy ciy ciy ciy ba mu pare toilette la ko kooku di préparé waaye kii dajeeg yàlla moom la lay préparé parce que yàlla soxlawul toilette yàlla soxlawul yére yàlla soxlawul takkaay yàlla soxlawul or yàlla soxlawul jamaa yàlla soxlawul soxlawul la yàlla soxla man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan saalix yàlla amalu saalix la bëgg amalu saalix looloo tax kon kii dem ci yàlla li mu war a waaj mooy jëf ju baax kii dem ci yàlla lan la war a préparé jaamu ko moom borom bi tabaraka wa taala axi uxti tasawar yow sama sœur wala sama frère jëlal image ci safara wi ngay liggéeyee ak tàngaayam yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na inna naara jahannam fi harriha ka naari dunya allati na'lam lakin al amru laysa kazalika fa hiya ashaddu fayhan wa innama naaru dunya juz'un qalil min naari jahannam yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na xalaat leen dafa am benn mbokk bu jigéen ci ay at yu yàgg war na toll léegi fukki at ak juróom wala ñaar fukki at dañ daan waxtaan ak moom ci wàllu diine muy lànk suñu waxee ci moom diine mu bañ benn bis rek ma dégg da doon togg ci waañ wi cin bi daal di këpp ci kawam bi cin bi këppoo ci tànk yi la këpp jëm suuf te diwlin la woon après bi ma ko déggee ma sol sama daal dem di ko ziyaare ji ma ñëw fekk ñi ngi band tànk bi mënul bouger ndax tànk bu métti roxee la tuddoon ma ne ko roxee lii lan la mu ne ma dama lakk lan moo këpp sa kaw mu ne ma diwlin bi dama doon rosi rek ndeke kuddu gi xëcc na cin bi cin bi daanu sama kaw ma ne ko léegi bi cin bi daanoo sa kaw loo sentir moment yooyu cin bi daanu sa kaw nit ñi ñëwaguñu di la dimbali mu ne ma loolu mënuma ko wax nit métit boobu ma daal ma mënuma ko wax nit ma ne ko est ce que xam nga lu raw lii juróom-ñaar fukka mi ngi lay xaar yow mal xiyam parce que lii tey sa benn partie ci yaram bi moo lakk yow mal xiyam yàlla da lay sóob yowmal xiyaam yàlla da la ciy sóob mu ne tekk ba ci yàgg mu jooy yàlla dimbali ko balaa tànk bi di wér dafa fekk mu xijaab ndeysaan ba léegi fii ma toog mu ngi xijaab te loolu moo ko ci dugal kon kenn ku nekk na nga xalaat safara bii mu fekkoon tey ñu teg fii gaz bi di ataaya ñu ne la toog ci ba pare ñu may la milliard milliard lan lay may toogal rek cinq minutes nga wàcc ñu may la milliard waa ji génne mallette bi ubbi teg big bi teg lépp di teg di la xaar milliard bari na dëggaay lu nit lu nit lu nit lu nit dof dof dof du ne naa ci toog après ma faju sa naan moo toppal fële laa la wax yow da nga yow moo nangu ngeen wala pourtant milliard bari na de milliard waaye kenn ci ñun di wax ne xaaral ma toog après ma dem fajuwaay su ko defee ma xaaj 2 millions yi naa ci def nangam damay tukki dem France après ñu faj ma kenn xoolal doo xoolal doo fa nekk sax di hésité da nga daan waaj xoolal yaag sa xalal yaag sa xaalis yëpp ca xaj man xaruwuma allahu akbar ay image rek yu ma leen di jox la yoo xam ne tey buñ ko proposé woon kenn ci ñun du day bañ yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi muy message loolu mu ne leen yéen a ngi image yi nii lii waaye maa ngi leen di wax ne wal amru mbir mi laysa kazalik foog leen li ngeen di gis nii mbir mi nekkul comme bële de yenn saa yi ñu ne la doo ñoo yam dé yonent bi ne déedéet wa innama naaru dunya yonent bi ne safara àdduna bi ngeen di gis mu ne juz'un qalil min jahannam benn partie la boo xam ne dañ koo xaaj ci biir jahannam xam ngeen lu borom xam-xam yi wax la moo tax safara ñëw àdduna ñu ne Adama bi ko yàlla natoo wàcce ko ci kaw suuf ndeysaan àjjana bi mu fa nekkee da doon lekk te du fay lu mu bëgg rek day ñëw mu lekk moo soxnaam ba ñu tooñee yàlla yàlla wàcce leen Adama wàcc ne yàlla ah ah léegi nu may def ba lekk yàlla mu ne ko débrouiller mu jàpp picc rey ko mu gis picc mi ak picc ya mu doon lekk du benn parce que yee dañoo ñor lii dafa sicc ñorul mu ne yàlla lii ñorul yàlla mu ne ko ah léegi nag mu ne yàlla teeg maa may ci jahannama safara boobu ma gis foofu teeg ma cee may tuuti ma lakk ci sama picc mi yàlla mu ne ko safara xejul àdduna jahannama xejul ci àdduna mu ne yàlla may ma ci foog ma lekk yàlla daal dem ci safara jahannama daal ci dagg lu toll ne bekk suukar daal di koy sànni ci géej gi géej gi di bax vague yi jóg mooy li ngeen di gis ni yàlla daal ne ko caas jël ko ci montagne yi montagne yi explosé bi montagne yi explosé am benn fett fett bu ndaw bu dal fële ci ñax mi ñax mi tàkk yàlla mu ne Adama jëlal tàkki tàkkit bële ci ñax mi li ci des xeju fa daal di koy buub delloo ko jahannama loolu est-ce que yaramu doomu Adama dëkk na ko loolu mbokk yi ñun nii ndax dëkk nu mën nañ ko attan attan nañ ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne fa innaha fuddilat bi tisa wa tisina juz'an yonent bi nee na dañ ko xaaj 99 xaaj ci cent yi ñu denc 99 yi benn daggit bi ñu indil ñu ko kon mbokk yi la fa des nu mu mel nañ ci yàlla musal inna shiddata alxarri allati nasku minha fi dunya bu tàngaay bi amee bu tàngaay bi jotee ci dëkk bi lan ngeen di gis ñëpp préparé saa nga dégg soxna si mu ne jëkkër ji clim bi wol gaa yi ah ventilateur bi bul fàtte bul fàtte climatiseur bi dañ koy préparé ci ay jumtukaay préparé ko ci ay yére ah dangay gis tàngaay bi di commencé rek ndaw si wala waa ji ñu ubbi armoire bi ñu commencé ranger ñoom mbàjj ñoom pulvère allez allez allez au revoir année prochaine ciao bye bye di ko ranger ndeysaan lu xew nga gis dem marché jaral na leen commencé jënd yeneen pour lan tàngaay dañuy préparer loolu ah seddaay dañ koy préparer yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na seddaay bii ngeen di gis ak tàngaay bi xam ngeen fu mu jógee ñu ne déedéet mu ne safara mooy nooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne adbiru salaa fa inna shiddat alxar min fay jahannam sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na su tàngee na ngeen yéexee julli tisbaar ak tàkkusaan na ngeen ko yéexee mu ne ndax jahannama mooy nooy xoolal bu tàngaay bi amee ci àdduna nun du nu mun a du nu mun a normal tey gis ñëpp genew am ñoo xam dañuy tëj kër yi sax dem géej te du leen tax am li ñu bëgg mais il faut que dañu jéem a xeex ak tàngaay bi yonent bi nee na ci tàngaay boobu ngeen gis jahannama mooy nooy yi fenêtre yi la ñu ubbi muy nooy yi moo tax nit ñi mënatuñoo normal ci àdduna la hawla wala quwwata illa billah su sedd bi ñëwee kazalik noonu lay def ndax safara yàlla ñaari nooy yi la ko yàlla may muy nooy day nooy tàngaay nooy seddaay après mu jeex ixwatal iman ala kaab wallazi nafsu kaab bi yadihi law kuntu bil mashriq wannaar bil maghrib summa kusifa anha la xaraju dimaag la xaraja dimaaguk sayduna muhammad alayhi salatu wasalaam nee na kaab mooy nettali nee na bu nit nekkoon ci penku jant bi fu muy fenkee nit nekk fa wala nit nekk fii ci sow bi ja safara ñu indi ko ba ci penku bi fi muy jant bi di fenkee distance bi ñaata kilomètre la nee na bu nu gaarale woon noonu nit ci safara yuuram yi dana këpp ci suuf kon suñ fa dugalee nit fu mu jëm sami'u laha taxayusan danañ yàlla dimbale mbokk jullit yi mu ne axi yow sama frère aw uxti law lam yakun fi nnaari illa haza alxar la kafa bihi waaizan wa daayan su fekkoon tene du mbugal yi yàlla ut yëpp mu ne lii kese la rek luñ ci wax mu ne kon doyoon na rek nit ñi war a jàpp ci yàlla bàyyi caaxaan bàyyi font bu doon mbugalu yàlla tabaraka wa taala ci safara bu ndaw bii ci àdduna dong la yem dong yàlla nel bii laa leen di xaare kon doon na doy kenn ku nekk ci ñun mbokk yi dina doy ci yow muy ak waar dina doy ci yow muy ak dellu ku nga bàyyi mooy yàlla tabaraka wa taala waaye fa kayfa wal amru asad wa azam na waaye mbokk yi mbir mi foo ko natt ci tiitaay wees na ko foo ko natt ci rëyaay ci rëyaay wees na ko yàlla ne kalla innaha lava nazaatan lishawa al maarij 15 16 mais safara nañu bàyyi xel taswiluhumul wajh kanam lu mu nooy nooy nooy nooy lu mu leer leer leer leer lu mu melax melax melax melax bu jàkkaarloo ak safara safara lekk ko yaram bi lu mu dëgër dëgër loo ko diw lu mu leer dana changé ku yàlla dugal ci safara di nga changé ku rafetoon di nga ñaaw mu ne innaha qarun mali'atun bil xanaadiq barab la boo xam ne xur la woo xam ne xur mooy kaaw la woo xam ne dafa bëri ay pax ci biir pax yi mu ne montagne yi dañoo tàng jër ay jaana fa nekk ki jiit aleykum salaam ay mbolde ki seen ñamam kenn mun la ko wax ni mel ci mbor ak wex ndoxam tàng na tàngaay woo xam ne kenn mun la ko nettali waaye mu ne wa kulluha zullun wa muhaana barab la boo xam ne léppam naqar la ak texeedi ak doyadi ku fa yàlla jëme rek texeedi loo na la ku fa yàlla jëme teddadil na la ku fa yàlla jëme daf laa nar a métital ku la fa ku fa yàlla jëme daf laa nar a alak xisun wa nadaama gàcc ak réccu moo fa nekk gàcc ak réccu te ki yàlla di gàcceel mooy ki ko toppul rek kii réccu mooy ki toppul yàlla yawma yauddu zalimu ala yadayhi bis bi nga xam ne nit dana matt ñaari loxoom tey nit ci àdduna bu amee problème mbokk yi lan lay matt benn baaraam dan ni sa yowmal xiyaam sa ñaari loxo yi ngay matt ndax yàlla loolu la wax yowma yauddu zalimu ala yadayhi sa gémmiñ gi ngay ŋaang ba mu xotteeku ñaari loxo yëpp nga dugal ko matt xam ngeen kooku di réccu lan lay réccu wooy man yaa laytani ittaxastu maa rasuli sabila su ma xamoon ma jaar ci yoonu Seyduna Muhammad moo tax coow li li muy bari bari ku jaarul ci yoonu Muhammad Muhammad ëllëg di nga alku ndax amul benn yoon bu yàlla di ubbi lu dul yoonu Muhammad yowmal qiyaam bu ñu dekkee ku nekkul ci ginnaaw Muhammad alku nga du ñu toog nag ba dem ngay laajte fii lu doon yoon wi ngay laajte foofu lu doon yoon wi déedéet fii nga koy xamee nga topp ci coow li li muy bari bari bari ëllëg laa wax benn porte la ñuy ubbi benn buntu kese la benn yoon kese la muy yoonu Muhammad ku ci jaarul da ngay texee di yàlla da lay lakk lu waral loolu mooy ñun ñi toog ci saal bi di dégg kàddu gi ku judd ci ñun bi ñu woowee imaam wala bu doon sa baay wala sa wayjur bu jigéen teewlu na lenn ci diine baat yi muy njëkk a dugal ci sa nopp baat yooyu turu kenn rek moo ci nekk muy turu Muhammad wala bu fekkee da lay tudd imaam ñëw jour tudd bi jot imaam bu ñëwee tur bi muy dugal ci sa nopp turu kenn kese la mooy turu Muhammad tur boobu bu julli jotee ci tur boobu lan la woowee léegi léegi jàkka ji bi ñuy julli takkusaan Bilaal bi mu jëlee micro bi di noddu doomu aadama yi li ñuy bari yonent yi li ñuy bari bari benn yonent lañ wax ci micro bi mooy turu Muhammad ci biir julli gi bi ngay taaya munoo julli gi julli gi ba julli gi jeex lu dul turu Muhammad boobu di nga ko tudd. sooy taaya sax di sëlmal foog nga tudd turu Muhammad xoola kon fi nga tàmbaleeg Muhammad nga des nag léegi ba faatu ñu jëlee la ci kër gi yóbbu la ci jàkka ji jëlee ci jàkka ji yóbbu ci armeel ya ñu gas ba mu xool dugal la nit ñi ñibbi yàlla yónni benn malaaka mu ñëw ci yow ne la maaza kunta taqulu ala haada al abdu muhammada muhammad mi nga doon dégg ñu ne waaw la la doon wax ci moom kon kooku jar naa xam balaa ngay dem foofu xoolal fi mu tàmbalee yow bi nga juddoo rek ne cut rek ñu ne la Muhammad nga dund cinquante ans dund soixante ans dund dund dund bañ naan am na téeméer rek amul téeméer ñu dugal la bàmmeel malaaka bi ne loo doon wax ci Muhammad nga ne xaw ma ko du baax kon loolu du ay làmbatu su fekkee dañuy jàngal sunu élèves yi sunu doom yi le drapeau du Sénégal ah di leen ko jàngal jardin d'enfants di leen ko jàngal élémentaire di jàng gouvernement bi comme lu ko composé di jàng di jàng di jàng lu leen ñu jàng jànguñu kan mooy yàlla jànguñu kan mooy Muhammad jànguñu lan mooy alxuraan la ilaha illallah te loolu lan lay laaj biir bàmmeel benn benn benn benn borom xam-xam nee na suñ lay laaj bàmmeel duñ la laaj laaj waa seconde duñ la laaj laaj waa lycée duñ la laaj laaj waa université xam nga lan lañ lay laaj ibtidaaya élémentaire la ilaha illallah ndax yomb élémentaire un licencié ñu koy laaj laaju élémentaire te du trouvé lan mooy laaj yi man rabbuk lan mooy laaj bi man nabiyuk lan mooy laaj bi maa diinuk lan mooy laaj bi maa kitaabuk élémentaire la wala du élémentaire léegi nag yow yaa ngi am doctorat ñu laaj la laaj waa élémentaire xamoo ko te am nga doctorat gaañ gaañ am na lu nuy xaar de waaw am na lu nuy xaar lu rëy waaw kon ku xam am nga lu lay xaar di nga préparer loolu doo toog rek di ko def taf taf mbokki jullit yi ku bàyyiwul xel ëllëg ku bàyyiwul xel sa boroom ku bàyyiwul xel feewu suratu naba loolu yàlla naan doomu aadama dana dékki naan yaa laytani kuntu turaba ak a neexoon ma nekk suuf tey jii fi ngeen toog am na ci yéen ñoo xam ne seeni saak ñaari musuwaar ñoo ci nekk bi ñu wàccee tali bi diggante tali beeg fii musuwaar bi nekk ci loxo bi nee nañ dàll bi mer de mbedd mi dafa bari suuf quoi ah diggante tali beeg fii rek beneen musuwaar bi moom pour kanam gi la bu góor suuf laal la yowmal qiyaam nga dekki taxaw ci kanam yàlla gis ñi yàlla jot a àtte yeeg seegul ci yow ne yaa laytani kuntu turaba aka neexoon tey ma nekk suuf doomu aadama day dekki taxaw ci kanam yàlla yàlla daal di dekkil mala yi rabu àll yi bu tooñoon sa morom bu ne yàlla mu ne fayul xar bi am béjjën mbëkkoon bu amul béjjën yàlla daan ne bi amul béjjén biñ mbëkkoon na fayu gis ngeen mala yooyu bu ñu fayoo ba pare ba yàlla àtte leen ba mu jeex doomu aadama yaa ngi taxaw di xool yàlla day wax mala yooyu kuunu turaaba nekk leen suuf ñoom ñoom ñu nekk suuf doomu aadama nag bu gisee loolu gis ne ñii yàlla da leen a àtte def leen suuf moom tam mu ne yaa laytani kuntu turaaba aka neexoon tey fii ma taxaw ma nekk suuf mu ne yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma izim bi banii yawmi izim bi banii wa saahibatihi wa axii wa fasilatihi allati tuwi wa man fi l ardi jamian summa yunji loolu yàlla nga ko wax ci maarij 11 14 yàlla nee na keroog bis penc ku jaamuwul woon yàlla dana mébét dana bëgg mbugal mi yàlla taxawal tey fas yéene ko cee sóob i yàlla jëla sama soxna waaye nga dugal ko safara waaw ay yàlla sama jëkkër a ngi nii jox naa la ko lakk ko yàlla ne bëgguma de bu dee ku góor ki la mu ne yàlla jëlal sa amoon naa ñeenti soxna ñu ngi nii dugalal yàlla mu ne déedéet mu ne yàlla teg ci sama doom yi soxna yëpp ku nekk amoon naa moo doom fukki doom xanaa ñooñu war na doy yàlla mu ne déedéet mu ne yàlla teg naa ci sama famille yàlla mu ne déedéet mu ne yàlla wa man fil ardi jamian teg naa ci waa suuf yëpp lakk leen sama papa ak sama yaay sax dugal ko ci wa man fil ardi jamian dugal na papa ak yaay waaw ak yonent bi sax wallahi barakallahu fiik summa yunji man yàlla nga musal ma yàlla mu ne kalla déedéet wala yuadibu adabahu ahad wala yusiqu wasaaqahu ahad tey yow kese la yow rek kon doomu ndey bu nu àdduna jay bu nu topp sunuy bànneex bu nu taaru àdduna këf lu nu nekk lu mu mën a doon na ci yàlla jiitu looy am na nekk yàlla looy ñàkk bu mu nekk yàlla sa kër kër yi àdduna yépp yëngatu yi guddeeg bëccëg bàyyil xel yàlla soo bàyyee xel yàlla sa àdduna day jàkk soo fàttee yàlla sa àdduna day lëndëm Abdullah ibn Omar du ma deñ di nettali xissa bi parce que xissa bi dafay changer dund Abdullah ibn Omar dafa dem ci àll bi fekk fa ab sàmmkat muy sàmm mu ne sàmmkat bi ñun de dañoo xiif sa xar yi doon ci jaay benn mu ne moom ma ko mu ne ko soo demee nga ni borom xar yi till yi ñoo fàdd xar mi sàmmkat bi daal ne Abdullah ibn Umar ayna Allah ana yàlla Abdullah ibn Umar tiit daaju si suuf jóg tee sikkim bi ak ñaari loxo yi ngëpp ko naan qaala raa'i ayna Allah sàmmkat bi nee na ana yàlla sàmmkat bi nee na ana yàlla ku nekk ci ñun war ngay xalaat ana yàlla sooy xalaat ana yàlla dootoo biddanti fajar sooy xalaat ana yàlla balaa ngay génn ci biti da nga naan man nii ma mel est-ce que mun naa génn wala munumaa génn sooy xalaat ana yàlla lii ma sol war na war naa koo sol wala waruma ko sol sooy xalaat ana yàlla lii may liggéey war naa ko liggéey wala waruma ko liggéey lii may lekk war naa ko lekk wala waruma ko lekk lii may naan war naa ko naan wala waruma ko naan fii may dem war naa fa dem wala waruma fa dem lii may wax war naa ko wax wala waruma ko wax lii may def war naa ko def wala waruma ko def loolu yëpp lan moo lay dimbali ci loolu lépp mu nekk mooy ayna allah ana yàlla wax jooju moo defaroon dundu gaa yu njëkk yi ku ci nekk da ngaa defoon loolu ci sa nosu kanam looy def nga xalaat yàlla looy bàyyi nga xalaat yàlla mbokk yi mu ne wala tasal an akliha wa sharabiha bul laajte mukk lekk yi yàlla nattoo ña fa nar a dugg la ñuy lekk ak la ñuy naan bul laajte seeni lal bul wàcce bul laajte seeni daraja bu làcce la leen yàlla dencal ci mbugal léeg-léeg nit dégg loolu naan ni suu tut tut tut yàlla soxor na xoolal li nga def ku nekk ci ñun bu mu xalaat loolu waaye xam nga lu muy xalaat na xool boppam moom lan la def ba am lii kii lan la def léeg-léeg nga romb nit yërëm ko waaye sa xel war na laa may kii lan la def parce que yàlla du tooñ léeg-léeg nga romb nit ñee ko waaye xalaatal kii lan la def dama génn xuruj ci benn jàkk ñu fanaan ci jàkk bi bër set ñuy julli fajar ma préparé sama sac bi ma yóbbu woon def ci sama bagage yi ma fanaanoo woon ma simmi jàpp liit samay message sama portable ci guddi gi fay dugal sama sac ñu ne bismillah ma bàyyi sac bi ci rang bi ma nekkoon daal di avancé ci beneen rang bi comme dama gis espace ci kanam ma avancé ñu sëlmal ma gestu gisuma saag bi ñu xool jàkk ji gisuñu saag bi ñu génn ci biti gisuñu saag bi kon ana saag bi saag bi dem na ma toog amir bi ñëw ba ci man ne ma santal yàlla balaa yàlla deful kii jël nga nekk ku ñuy jëlal santal yàlla bala yàlla nattuwul nga nekk kii jël waaye yow lanu jëlal kon lu nekk xam ngeen ne kooku di jël yàlla nattu na ko kon nanu xalaat loolu mu ne ñii soo gisee yàlla def leen lii dam nekkoon ci àdduna di rëy rëy lu ci jaamu yàlla wa iza zukiru laa yazakkaru suñ leen waaree duñ waaru duñ waaru suñu waxee yàlla neen ah garaawul danañu comprendre maam yàlla ji day baale yooyu la ñuy langage yooyu la ñuy véhiculer yàlla nee na ñu ne ah garaawul xolal may ñu tuuti rek may nu may nu may nu ba ci kanam buñ leen waaree duñ waaru wa iza sami'u ayatullahi ittaxazuha huzwan wa la'iban buñ déggee ñuy wax ay yàlla yi ñu ñu ciy boole ay kokkali ah yaa wax loolu loolu de tës la ah ah bon ah noonu la oh yàlla nee na nga ne ah ah loolu rek la wax ah ah moo wax loolu di kokkali kii wax ak yow voilà. yàlla nee na su nga gisee ñii ma leen di def lii bu nu déggee aaya yàlla yi dañ koy jàppe fo ak caaxaan. yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na kaay leen ma wax leen ala uxbirukum bi ahli naar kaay leen ma wax leen ñan ñooy jëm safara mu ne kullootu lin képp kuy ngand ngandalu mustakbir di rëy rëylu buñ ko waaree du waaru buñ ko waxee du dégg waa safara biñ duggee safara ba pare ndeysaan waa àjjana di leen xool ndax mbugal gi ni mettee dafa mel ne waa aljanna dañoo laaj waa waa safara waa yéen maa salakakum fi saqar lu ngeen doon xoole ba dugg safara xam nga yenn saa yi même fii ci dund gi sa xarit sa doom sa mbokk sa sa même sa jëkkër wala sa jabar dugg ci yenn erreur boo ñëwee nga xool da nga naan ko mais yow yow nooru imaginer ba dugg ci ba def li yow wala ah kum mu ne doon yenn saa yi boo koy critiquer da nga mais yow mais non yow ak li nga toll yow ak non yow lii waroo ko def yow lan moo la poussé ba nga dugg ci lii tey loolu la waa safara waa àjjana laaj ne leen yéen waa yéen maa salakakum fi saqar lu ngeen doon xulle ba dugg fii isaan beneen aaya bi suratul mulk da ngay gis ñoom ba ñu duggee ba pare ba mbugal gi metti ñu reconnaître ne ñoo tooñ ndeysaan ñu taxaw nag léegi nag naan law kunna nasma aw naqil ma kunna fi ashaabi sair cay ñun te suñ doon dégg ah kon daaw leen dégg kon ndeke nit mu ngi am nopp mi déggut allahu akbar lahum qulubun wa lahum ayunun wa lahum azanun bal hum kal an'am yàlla mu ne déedéet bal hum adal dañ koy rab yi sax leen tane ndeke yàlla may may nopp ndeke nopp lu muy jëriñ ah la ilaha illallah xel lu muy jëriñ wala waa safara lu ñuy wax law kunna nasma ci ñun buñ doon dégg aw naqil wala ñuy xalaat ci sunu xel yi kon tey fii ma kunna fi ashaabi sair jamais waaye kon ndeke ñàkk dégg ñàkk xelu ci xel yi la yàlla may xel mi mooy lan mooy ni nga xalaate ba sa àdduna jag xalaatal noonu ba nga dem alaxira pour sa alaxira neex loolu la xel di jëriñ ni nga xalaate ba sa àdduna jag sa lépp normal doo tàllal kenn loxo waaye waaye xalaatal noonu alaxira ba bu la nit romb nga naan ey waay diw ey kii du diw waay waay déedéet parce que àdduna bi waxoo diw waxoo kenn sa bopp rek nga wax yéen samay mbokk yu góor ak yu jigéen wax ji wax yàlla la ak waxi yonent nun ñëpp nanu ànd xalaat ci dese nañu temps de ñun dese nañu temps yéen ñi yàlla def tey ngeen ñëw fii ci saal bi dese ngeen temps de dese nañ temps man ak yéen ñëpp dese nañu temps am na lu nu dese ci li bëccëg yi ñu dese yàlla baaxe na nu ñu war a xam li yàlla bëgg ci ñun buñ génnee fii ñu nekk ci léegi balaa bëccëg yooyu di ñëw ki perte Sufyaanu Sawri dafa am ku faatu ñu génne ko ci morgue bi yóbbu ko ba ci armée li gas bu mu xóot balaa ñu koy dugal Sufyaan ne may leen ma ma wax ak mbokk yi ñu ne ko bismillah mu ne kii tëdd fii ñu ne ah mu ne lan la mënati tey gaa yi ñu ne kii kay mënatul dara mën na julli ñu ne déedéet kii ndax mënati na woor ñu ne déedéet kii ndax mënati na jàng alxuraan kii ndax mënati na zikr déedéet ne yéen ñi ko mën kon bu mu leen rawati gaañ ñun dese nañoo am na lu ñu mën ba tey kon buñ bàyyeekoo fii ku daawul solu ci ñun ni yàlla bëgg na bàyyi xel bi sa ngi ñëw dinañ ko solal de ki daawul julli ci ñun ci waxtu na bàyyi xel de ki daawul jàng ci ñun Qur'an ki daawul zikr ki daawul saraxe ki daawul téye làmmiñ ki daawul ki daawul na fexe xam ne loolu mu ngi nii di ñëw sunu kanam te yàggul adduna yàggul ay bëccëg la ci yàlla lu tax inna yawman inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'uddun sunu junni at mooy benn fan ci yàlla moo tax yowmal xiyaam ki am fii téeméeri at buñ ko fekkee ci bàmmeel yee ko ne ko jógal yowmal xiyaam jot na waaye yow ñaata at nga def ci bàmmeel bi mu ne in labis naa illaa yowman man de benn fan rek laa fi def fekk def na ci bàmmeel yi téeméeri at def na ci adduna bi téeméeri at waaye dan naan in labis naa illaa yowman ñenn ñi dan naan lam yalbasu illaa ashiyatan man de damaa judd rek benn bëccëg rek dee fekk dem na fi juróom fukki at kon adduna yàggul day taaru ci sunu kanam ne dafa yàgg fi nga juddoo fi nga nàmpe fi nga raame fi nga doxe fi nga jànge fi nga génne fi nga liggéeyee fi ñu la embauché fi nga commencé loolu lépp ci yàlla matul benn fan loolu lépp ci yàlla matul benn fan moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam pour bàyyi loonu xel mu ne aduna amul valeur soo amoon valeur yéeféer du fi naan guuxu ndox te wallahi amul valeur kon nanu bàyyi xel loolu axil karim aw uxtil karima wax zar mooy tandikul balaa aduna di la jay wa yumannika sarabuha mu lay jox ay càll mbeerum mébétam xam ngeen luy càll mbeer boo taxawee ci tali bi ci naaj bu tàng tali bi nekk benn autoroute bu gudd nga taxaw fii da ngay seet fële lu mel ne ndox muy farax farax njunux très bien njunux soo taxawee fii di ko seen fële muy calax-calax yi bu fekkoon ne ku mar naan nga suñu benn xarit ndeysaan kii nekk sama ginnaaw xam na ko bu muy dem Espagne dafa jaar ci géej gi ci gaal yi la der la jaar mu ne bi ñuy dem dañoo jékki-jékki ñu réer ci biir géej gi mu ne ndax dañuy seen ay lamp rek ñu naan lamp yaa ngi ne dëkk baa ngi ne mu ne ñuy dem rek ba mu mat fukki fan ak juróom duñ jege lamp yi jege du lamp xamu ne iblis ci biir géej gi la dëkk mu ne dañoo dem dem dem ba lekk yi jeex na ndox mi jeex na suukar fi moo fi des ñuy tànq ndoxu géej gi di ci def suukar di naan après rek mu ne lañ tourné gaal gi ñu ne daal léegi nañ ko bàyyi mu jaar nii rek suñu yeggee baax na bu ñu dee ñun ñëpp baax na fi ñuy découragé rek ñu seen ay picc ñu ne ah kon fee la picc fee mooy tefes bi gis ngeen loolu mooy mbirum àdduna da ngay nekk ci àdduna di seen mële fële nga naan naa dem rek ngay dem rek doo mës a tourné ndax yaa ngi dem rek mu ngi neex yaa ngi dem rek mu ngi neex yaa ngi dem rek mu ngi neex balaa ngay tourné day fekk malakal mooti taxaw sa kanam nga naan ma dellu mu ne la non te trop tard egg nga fi mooy terminus bi kon mu ne lanu mooy tandiku àdduna di nu nax balaa yàlla di nu natt ñuy bokk foofu yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran waquduha annaasu walhijaara mbokk yi yàllaa ñu woo ci baatu ngëm nida min arab jalla jalaalu yàlla moo woote ci baatu ngëm mu ne yéen ñi ma gëm musal leen seen bopp ak seen njaboot safara musal sa bopp ak sa njaboot boo yeewoo yeeteel kër yeel kër gi sa borom kër gi sax yee ko mooy tandikul nga nekk kooku nga xam ne keroog ba mu ne ba mu yeewoo bi mu déggee ñu ne asalaatu xayru min an nawmi mu yeewu bëgg a dem jàkk soxna si da koo teg loxo rek mu daal di nelawaat ndeysaan waaw léeg-léeg nit yeewu jàpp ba pare rek bëgg a julli soxna si teg la loxo rek nga tëddaat tëddaat mu ne bis a ngi ñëw soxna soosu tere la woon dem jàkk dana yuuxu ba ñëpp ñëw mu ne yéen jël leen yóbbu jàkk ci walla mooy tëndiku loolu man ak yow nan mooy tëndiku loolu mu ne nañ musal sunu bopp musal sunu njaboot keroog bi aaya bi wàccee dafa am sahaaba bu jooy jooy yu métti gaa yi làkk bopp lu muy jooy mu lànk bañ ko wax ñu dem boole koog yonent bi yonent bi daal di koy woo ne ko yow dégg naa gaa yi ne na yaa ngi jooy rek mu ne waaw waaw lu ko waral mu ne qu anfusakum wa ahlikum naaran yàlla nee na ma musal sama bopp musal sama njaboot man sama bopp rek pour ma dugg aljanna problème la ajastu an nafsi wa kulliftu an ahli sama bopp problème la yàlla jël sama njaboot teg sama kaw loolu mooy duma dugg ar rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko wa xasbuka an taamurahum bima taamuru bihi nafsak dina doy ci yow li ngay digal sa bopp ci lu baax nga digal ko sa njaboot ban njëriñ la am ngay jaamu yàlla bàyyi sa borom kër wala sa soxna wala say doom ñu nekk ci caaxaan yaa ngi solu solu bu baax bu normal nga bàyyi sa doom du solu yow yaayam yaa ngi solu sol bu normal sa doom bu jigéen bi nga bàyyi ko mu sol sol bu bon sa doom bu góor bi kazalik yaa ngi julli nga bàyyi leen ñoom ñu ngi tëdd yaa ngi def dem def dars yaa ngi leen bàyyi ñoom yaa ngi dem waxtaan yaa ngi leen bàyyi ñoom ban njëriñ la am est-ce que kon yow li nga bëgg loolu nga leen bëggal déedéet te yàlla na nga musal sa bopp musal sa njaboot bokki jullit yi ibnu rajab alhanbali nee na rahimahullah wa aksarul mufassirin ak borom xam-xam yi bëri ci firi alquran ñu ne anna al muraadu bil xijaar xijaaru kibrit ñu ne li ëpp ci xeer yooyu yàlla wax ne musal leen seen bopp ci safara soo xam dañ koy xambi ay nit ak ay xeer mu ne xeer yooyu xeeru betteex la moom la ñuy xambe safara mu ne juróomi façon xeer la juróomi façon xeer xamsa anwa mu ne juróomi façon yooyu juróomi façon mbugal lay mbugalaate mu ne laysa fiha gayruha amul leneen lu dul li nee na xeer yooyu suratul iqad dafa gaaw a tàkk wa kasratu duxaan mu ne dafa bëri poussière ak pënd saxaar wa siddatul ilsaq iltisaq mu ne waaye dafa gaaw a kole ci yaram bil abdaan mu ne wa quwatu xarriha iza xumiyat waaye dafa gaaw ci tàng bu muy tàng rawatina nag bu tàngee jër mu ne kon war nañ koo ragal waaye mu ne mbokk yi fii yàlla du fa dugal lu dul ku ko weddi li ñuy dégg lii lépp yàlla ñi mu koy dencal mooy ñi ko weddi kon boo fa bañee dugg bul weddi sa borom ñan la fa yàlla di dugal mu ne kàccoor yi kon soo fa bëggee bañee dugg bul nekk kàccoor fexeel nga taxaw ci li la yàlla sant nga mooy tëndiku li la yàlla tere innama dunya ila al janna aw ila an naar dund àdduna moom bis boo fi jógee kër gooy fekki alaxira amu lu dul nga dem aljanna rek yàlla bégal la wala nga dugg fële yàlla mbugal la xam nga bu ñu demee ci ab stade match de football kii day bokk ci équipe bi kii bokk ci équipe bi am ñoo xam bokkuñu fenn fu ñuy nekk ci turbine yamal xiyaam amul turbine yamal xiyaam amul tribune amul supporter moom kay asxaabul maymana ak asxaabul masama asxaabul yamin wa asxaabul shimal waa gauche ak waa droite rek ñoo fa nekk benn nga nekk ci waa droite nga nekk waa aljanna wala nga nekk ci gauche wala iyaazu billah yàlla na ci yàlla musal su ko defee kon góorgóorlu war na nit borom bi subhanahu wa taala wax ci suratul hadid aya 20 mu ne i'lamu annama alxayatu dunya laibun wa lahwun wa zina wa tafaxurun baynakum wa takasurun fi lamwali walawlad kamathali gaythin ajaba alkuffara nabatu summa yahiju fatarahu musfarra mbokk yi sunu borom bu doon tey benn xabaar la buy jàll dañ naan sunu borom dafa joxe benn information boo xam ne dañ ko def grand titre ci tableau yeeg tableau d'affichage yeeg def ko ci journaux yi mu nekk titre bu xonq bu rëy ci kaw papier yu weex borom bi ne i'lamu annama alxayaatu dunya laibun wa lahu na leen leer wóor ci yéen ne dund àdduna caaxaan la ak ay fo waaw dund àdduna waru leen a jay waru leen a fëkk ba ngeen fàtte lan moo taxoon ngeen ñëw ci kaw suuf sunu dikk kaw suuf dafa am sabab dafa am lu tax yàlla bindunu dafa am lu tax mu indinu fii ba pare nag mu dugal ñu ci àdduna mu ne liggéey leen ci seen àdduna waaye bu leen fàtte seen alaxira wala tansa nasibak min addunia waxsin kama axsana allahu ilayk imal li dunyaaka ka annaka taishu abadan wa amal li axiritik ka annaka tamutu xadan wallahi wallahi wallahi loo nekk ci àdduna bàyyil xel yàlla lu poos bi diis diis diis diis boo déggee nodd bàyyi li nga doon def xamal ne kii di woote yow lay waxal soo bàyyee xel lool rek saa duna day jàkk soo bàyyee xel ne man kat benn missionnaire laa boo xam ne dañ maa yónni xam nga ñu yónni la nga dem benn mission tey bu fi yéen ñi nga xam ne da ngeen di liggéey ñu yónni la benn mission nga dem France wala nga dem Allemagne wala nga dem Canada wala nga dem États-Unis ñu yónni la benn mission nga dem di def mission bi yenn saa yi nga def liggéey ba ca nga jaar marché diir sërite wala pour boo ñibbisee wala noonu mooy àdduna mission bee la tax a jóg wala dem marché bee la tax a jóg mission bi dem marché bi occasion la rek mooy lii nag fii li ñu tax a jóg mooy jaamu yàlla leneen li fi jaar yëpp mooy dem marché bi léegi nag yow bu la waa société bi yónnee ne la demal nga defi nangam nga ni cëpp rek utal marché nit ñi dañuy font rek fii ni ma fi yàgg bëggee ñëw ah baax na balaa ñu may gis xam nga nekk ci li la neex ba mission bi jeex nga ñëw ñu ne la waaw yow bismillah léegi nag contrandé nga naan non gis ngeen nag wax dëgg yàlla xam naa da ngeen may yónni waar rek ndax ba ma demee ne cëpp daal dafa am loo xam dafa ma intéressé woon ma dem nag di lijjanti loolu far far far waxtu yi ñu ma joxoon daal di jeex far jour yi jeex léegi nag ma daal di ñëwaat nag ñibbisi nag jo fi ngeen ma waxoon nag demuma fa. ah li ma wax dafa garaaw xanaa li ma wax nii dafa garaaw. ah loo def ban lay daax loo def ban lay daax pourtant am nga loo lijjanti am nga loo lijjanti waaye lan moo tax ñooñu ngeen ne dañ lay daax wala wala wala wala lu tax c'est parce que yow dafa amoon lu tax ñu yónni la waa léegi kon ki ñëw ci kaw suuf waroon jaamu yàlla ba jóge fii ba dund gi jeex mu dem ci yàlla léegi nag ñu woo ko ne ko waaw yow mu naan yàlla waaw gis nga man de ba ma ñëwee àdduna waaw commencé di kepetu lan mooy xew yéen yéen a àtte de yéen a jugé sànq léegi luy xew sa digganteeg sa borom kon nañ leen bàyyi xel maa ngi tënk foofu waxtaan wi du noonu am na yeneen mbokk ay doomu ndey yoo xam ne ñu ngi fi it pare dañu war a jël kàddu la la la waas Oustaz nu waasi la Oustaz Guèye nga Oustaz Guèye.
la waas la أمم.
waas خلص لها أنت تريد تصلي هنا ولا la la la la la wallahi ma uridu an usalli hina هذا قبل الصلاة naam léegi oustaz
نعم dañu waxaat oustaz